yéen ñi safoo ak kóolite di seetaan chaîne bi woy leen di ko seetaan ak di ko topp ndax seen cofeel mooy sunu mbégte te li gën a neex mi ngi ci sunu kanam. Tivaouane 7 TV Tivaouane 7 TV ci chaîne youtube Tivaouane 7 TV te tamit bu leen fàtte activer cloche bi pour mën a recevoir bépp bataaxal bu ñu dugal ci bu nekk. ma boo yeewoon naaru li Maam Maodo bind mënuñu ci daal waa ji nee na Sénégal ñoo gën a yées ci jaamu yàlla loolu la wax ku tudd Alpha Ba moom bon bon moom xaw ma lan sàll que Maam Maodo bi naa dégg sama suuf wa kaana bat an xalaa i إلى أن جاء في الخارج والقدس لم يلم وخطه للفلوهجة قائلة فخالده ما ذاك من نزمه وآب مرتعدا مما يرى فزئا فخائلا زملوني ترفع الأمم خديجة سكنت بالقلب قائلة لم يخزك الله في دار لا وإنه جاء لورقة تحكي ما رواه لا وخال نعم موسى موسى عساك فابتدي فأكيد برب kon maa ngi ak kóolute di seetaan chaîne bi woy leen di ko seetaan ak di ko topp ndax seen cofeel mooy sunu mbégte te li gën neex mi ngi ci sunu kanam. Tivaouane 7 TV Tivaouane 7 TV Tivaouane 7 TV abonné wu leen ci chaîne YouTube Tivaouane 7 TV te tamit bu leen fàtte activer cloche notification bi pour mën a recevoir bépp bataaxal bu ñu dugal ci heure bu nekk.